xam lan moo c'est paradoxal nga am suuf am ay ay bâtiment nga romb suuf si romb bâtiment yi dem di louer am na yenn ci ay ay service administration bu état bokk ci nguur dañuy louer di fay te loolu du yoon alors que am nga ay terrain am ay bâtiment yoo xam ne ni état moo ko moom ci patrimoine état la bokk ñu ne ni dañu ko jaay wala dañu ko joxe en euh, ci wàllu bàyyi nu ñu koy mën a waxee mais euh, c'est tout à fait normal que bu ñuy wax ci xoolaat xaalis bi ñuy jëfandikoo ci état wàññi la réduction euh, wàññi li nga xam ne moom mooy euh, train de vie de l'état le train de vie de l'état mais dafa bokk ci du question wàññi téléphone kese wala internet kese waaye tamit bokk na ci wàññi xaalis bi ñuy jël di ci dem di ci loué ji léegi il faut une étude euh, objective par rapport ak loolu yëpp te comme ni mu ko waxee dañuy xool lan nañu moom loo xamee ni nañ ko joxee baaxul wala du yoon ñu nanguwaat ko ci anam yi ñu ko war a nangoo bu fekkee ne dañu war a compenser bu fekkee ne lu ñu war a def dañ koy def état la ñu nekk xam nañu nag la état di mën a jëlaatee loo xamee ni moom moo ko moom xam nga même suuf si nga xamee ni état daf la ko jox bu ko soxlaa am na sañ-sañu nangu ko ci yow ne la pour cause d'utilité publique am na sañ-sañ bi pourtant dañ la ko jox nga am sañ-sañ ci suuf si nga jël ñu jox la benn hectare wala ñaari hectare nga ni da nga ciy def nangam état dem ba jëmmi jamono gis ni état hectare yooyu mu la jox fomm la ko jox moom moo ko soxla pour cause d'utilité publique euh, da cee bëgg tabax hôpital wala da cee bëgg def nangam wala da cee bëgg def nangam loo xëy ni ñi nekk ci gox bi yëpp dañ ciy jëfandikoo wala ñi nekk ci Sénégal yëpp dañ koy soxla utilité publique boobu mu ne léegi euh, Cheikh maa la joxoon suuf si jëlaat naa ko ci yow mën naa la wutal feneen donc état ci rôle am la nekk maintenant comme il l'a dit dina am ay études yoo xam ne dañ koy def dañ càmbar nuñ koy càmbaree ci suuf si nga xam ni moom lañ jox yenn ñi ñi ñu jox leen deux cent hectares ñi ñu jox leen cinquante hectares ni mu ko waxee tamit ci euh, li Omar Dramé di yëngu mooy. bateau yi ñuy jox na ni jox nañ leen licence ñan nañ ko jox est-ce que ñu jox licence war nañ leen a jox licence te surtout bateau yooyu ñu naan ay bateau pavillon sénégalais te ña cay nekk ñëpp. kenn ñaari nit sénégalais ñoo ci nekk wala ñoo xamee ni dañ leen di jël daanaka comme ay journalier mais bato bi kaka moom dëgg-dëgg doomu réew Chine la wala euh, Japon wala Turquie wala feneen ak feneen loole yëpp man jàpp naa ni c'est une bonne chose bu fekkee ni euh, njeexital bi comme euh, ni ñu ko xalaatee mooy fexe ba wàññi li nga xamee ni moom mooy le coût de vie le coût de la vie ak train de vie plutôt de l'État pour permettre peut-être la ñuy tibb ci loolu ñu dugal ko feneen mais man euh, bëggoon naa ñu bañ a yem ci loolu dafa am lu ñu waxoon mu nekk sax ci programme bu Diomaye président gisee yenn institution yi ñuy wax budgétivore mais nañ leen tas milliards yi ñuy dugal ci ay conseil économique social environnemental au conseil des collectivités territoriales mais am na feneen fu mu xaj mën na am leen lu mu def tey institution yoo xamee ni ñeen nañu jàpp nañ ne amul njëriñ ñoom seen bopp bi ñu nekk opposition ñu ne ni institution budgétivore la ñu bari ne ni institution yooyu est-ce que am na njëriñ dëgg ci réew mi ñu ne non njëriñ bi pour chef de l'État la euh, ñeneen njëriñ bi euh, c'est plus pour caser une clientèle politique mais nañ tas yooyu la institution njort naa ni dinañ ci dem njort naa ko mais peut-être que il se donne le temps gérer yenn yi gérer yenn yi surtout dafa am noo xëy boo koy def faw mu dem assemblée te assemblée amaguñu majorité boobu donc dañuy xaar ba am majorité bu ñu soxla ci assemblée pour yenn yi ñu gën ko baral rawatina ci lu jëm ci yenn ci ay institutions. continuer rek ak euh, euh, Pamakura